andi woon Yékini ma daan da nga ne Yaxya daal di ne Gris waaw ñaar ñoo xam ne bu seen style bokkuñu. soo andi Gris man jaw dinaa la daan. ñun tamit lool la ñu nar daan ko ba toog si kawam rek. Balla Gaye du moroom moom na ko nangu. waaye Gris mën na bëre de. du ñu bëree juróomi minute. mooy ñu bëree ñu daan ko si bëre ba toog si biir bi rek. géejawaay benn bloc la dama bokk si ñëw jàppoon barabu sànd course yi ak centenaire bi di ko jël di ko yóbbu Géejawaay Géejawaay yàggul Gris Bordeaux bi muy premier combat bu nit waree ci kawam am na yoo xamante ne nax sa bopp la am na ñoo xamante ne buñ jàppul sa gañoo duñ bëre Balla Gaye parce que Fass am na ndam ci kaw ba léegi waaw lijjanti leen loolu mais ñun écurie Fass bi ñu nekk bëre moom ñeewu ñu si kenn Fass sama papa tas na fa man man man man bu ma bàyyi bëri je peux être un entraîneur de haut niveau ci sport de combat Balla mënu sax entraîneur Balla bokkuñu mag moom bokkuñu sax ay dimension. waaw man ngaaka laa moom wax dëgg yàlla ngaaka laa parce que bëgg ma doon nante parce que da lay sonal. Ah. nante non bu yàggee da nga yaakaar ne sa asamaan bu doon waaj da nga koy téye. non amul problème. Ah. loolu yàgg naa ko dégg c'est pas une première. ci domaine bi ngay toll la quoi en fait. ay niveau la. dama ci poobar def ci def ci kaani safal ko ma saf saf. xam ne moom dafa fekk moom saa su day tàng man sama yaram du jékki-jékki tàng de man damay tàng tous les moments pour muy leer. gars yi dañu bëgg mbër bu mbër mu mbër mu wuyu ci bés. bii man li ma bëgg moom moom lay def. làmb ji dina ci def coono bu metti mënul bañ a ñàkk. yooyu daal du yëfu góor pour man arbitre prip doxal ci kaw adversaire bi nga taxaw. non dana xoox dana sonn parce que bu yaakaar ne ci ñaari minutes lay bëri day sonn danaa ko xooxloo dana sonn. mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi. làmb ji en live lay doon pay per view ci seen affiche point com. parce que ay affaire mairie ak ay affaire politique moo tax ñu dalal ñi nga xam ne ñoo nekk Géejawaay ak ñi nga xam ne dañoo jógee ci yeneen département ñëw Géejawaay ñu wax leen soyez les bienvenus ak lan sax léegi nag nous donnons la parole au roi des arènes Balla Gaye numéro 2 mu wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. balaa muy wax nu ngeen ko nar a andee dimanche. ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci Sénégal yëpp ni ñu koy indee dimanche nag. waaw. dina raw niñ ko doon indee. dama dugg si léegi ci stade bi ma ne la. waaw 2 nga wax de. bële paase. waaw avertissement lañ daanee waaj. waaw mais 1-0 la victoire victoire la du tuuti. waaw bii yoon dañ koy daanaat. Ah. incha allahu rabbi attends photo de am. muy 2. 2022 lañ ne. waaw Balla Gaye 2. waaw Ahmed Aïdara 2. waaw 2 moo xew fii kon 2-0 la. Ah, kon nag dañ leen jox la Lion de Guédiawaye Babacar dama ci question yi. sant suma ñaar waajur sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ñaan yàlla. gars yi wàcc leen micro yi tuuti waay si ñu njaboot sëñ Bara gi mu mënul bu yàgg loolu maa ngi euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina sama supporters yi nga xamante ne vraiment suba la ñu ngi fi di sant ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm journaliste yi di gërëm waa Thiénaba kon waa mbokk guy bi comme ni ma gërëm waaw di gërëm ñu teew di gërëm aussi monsieur le maire mi nga xamante ne dafa def déplacement ñëw fii di suñu maire ci Guédiawaye ñu koy félicité di ko encouragé bu baax a baax ndax li mu def tey nii yàgg na ko def ak ñun di gërëm suñu père Massata bu baax a baax gis nañ coono yi ngay daj Père Diaw hmm. gis nañ ñu ngi daj xër ci Balla Gaye la bëgg hmm. bëgg maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm suma tëggkat Adama bu baax a baax di gërëm aussi tamit euh, waa école de Balla yëpp di sant guy gi sant guerre Aliou Seyde Abdou Diouf Marley Sakes Nuru Diagne Gabar ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm gis naa coono yi gis naa yéene bi di gërëm bu baax mais nag Alioune Seye bu baax maa ngi koy gërëm di gërëm essentiel suma yi nga xamante ne vraiment ñu ngi ànd ak man di liggéey loolu dina tamit gëloon ndax école bi vraiment gis nañ yi coono yi daj ci man bëggal ma ndam sopp ma te wóorul maa ngi gërëm nag bàyyi ma jigéen bàyyi ma aale ndax kenn ku xam ne bàyyi depuis mbapat ba léegi ñu ngi ànd ànd bu yàgg te dëgg na wax dëgg yàlla maa ngi sant di ko gërëm di gërëm Abdoul Aziz Aly Ndiaye di suma mag di suma xarit di suma kilifa di suma lépp ci àdduna rawatina famille Baye Aly Ndiaye yëpp di gërëm suñu Baye Aly di gërëm famille Sakho bu baax a baax suma mag suma kilifa suma xalifa di Malal Sakho di gërëm góor gi ci liggéey bu baax di suma papa maa ngi e Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon ak Cheikh Mbacke Gueye ak Baara Gueye ak Malick Gakou bi nga xamante mooy suñu mag ñun ñëpp fii ci Guédiawaye di ko sant bu baax di suñu coono di gërëm Aline Sall bi nga xamante ne vraiment yàgg na sonn ci ñun ah nee na Tall yàgg na sonn ci ñun la Diop yàgg na sonn ci ñun lépp Guédiawaye la mais tey ñun loolu lañ xam amet félicitation mais lépp Guédiawaye la yàlla na ndam ci ñi fi nekk nag perte loolu yàgg nañu fii ci Guédiawaye yow sa xol la la yàlla fay di gërëm daal waa Guédiawaye yëpp di sant ñëpp ñu ngi jëm ci bis bi nga xamante ne la set nag pour loolu. dimanche daanaka jege na ba pare. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla may ci ndam. te man li ma lay njëkk a laaj mooy maanaam combat bi bu dafa mel ni temps yi li ñu doon wax ci rajo yi ak télé yi ak ñuy bindu. Balla waa kër Aziz Ndiaye waa kër Baara dañ koo bàyyi. àndatuñu ak moom gunge ko ci combat bi Balla dafa wéet. mu mel ni dafa am la doon nëbb depuis lool saa yu ma la laajee doon nangoo sax sori ci combat bi ci lu bari. tey ma gis loolu waxi dof la loolu waxi dof la waxal leneen waxit non duma wax leneen question la question la question dama koy laaj non damay waxi dof dañ koy wax fii dañuy wax waxi dof fee ah, non yow doo ñu wax li ñu war a wax non doo ñu wax li ñu war a wax yow non doo ñu ma wax yow la kan yow yow la kan père yow la question la question la baal tontu ci tontu ci mais moom la kan baba bana bana bana tontu ci léegi tontu ci Omar tontu ci du ci tontu de euh, waxal leneen famille bi nga xamante ne wax dëgg yàlla bàyyante mënu fa am soppante ak wóolu Aziz sama papa ba muy dund la ma ko dégg tey Aziz maa ko gënoon doom yu dund maa xamal loolu tey papa Baye Ndiaye mi ngi wax ak yow maa ko gënoon ay doom ay doom yu dund parce que tey ah, daal lii bu ma bu ma loo xamante ne jaarul bu ma soli sagar sax ñoom dañ koy sama papa moo nekk dëgg suñu papa bàyyi aale suñu yaay mère Khoudia Diop jël ko dénk ma leen ñoom mënuñu ma bàyyi ilaa yow bi bu ma bu ma leen doon tooñ chaque jour ma bàyyi loolu sant yàlla masata noonu noonu noonu en tout cas combat bi dafa nekk combat bu ñu ñor lu bëri loo xamante ne amuñu temps pour wax jëf rek moo ci am solo te bu bés allah di gërëm waa golf li nga xamante ne wax dëgg yàlla ñuy sonn booy yi toog sama buntu kër suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que sonn nañu rawatina waa Guédiawaye combat bi nag man yëpp moo waa Guédiawaye waa Serigne Saliou Mbacké yaboo waa Guédiawaye soo ko waxee mooy ça veut dire que da ngay confirmer dimanche non yëpp ma leen parce que dafa loo xamante ne waaw euh, ay mbër sax bu ñu taxaw di wax lu leen neex ci làmb waaw man dem naa man dama toog ba toog ma xam ne man maa yëpp sama supporter bo dal mais mbër mbër dootuma yëpp Sénégal ñoom ñëpp di a baax. di sant waa Waalo Makano waa Kër waa Mbacke Kajoor waa Tivaouane waa Mbacke Kajoor di gërëm di gërëm waa la boo bëree woon daal la andi woon Yékini ma daan da nga ne Yaxya daal di ne Gris waaw ñaar ñoo xam ne bu seen style bokkuñu. soo andee Gris man jaw dinaa la daan. ñun tamit loolu la ñu nar daan ko ba toog si kawam rek. Balla Gaye du moroom moom na ko nangu. waaye Gris mën na bëre de. du ñu bëre juróomi minute. mooy ñu bëre ñu daan ko si bëre ba toog si biir bi rek. géejawaay benn bloc la ñu. dama bokk si ñi ñëw jàppoon baragu sànd course yi ak centenaire bi di ko jël di ko yóbbu Géejawaay Géejawaay yàggul Gris Bordeaux bi muy premier combat bu nit waree ci kawam am na yoo xamante ne nax sa bopp la am na ñoo xamante ne buñ jàppul sa gañoo duñ bëre Balla Gaye parce que Fass am na ndam ci kaw ba léegi waaw lijjanti leen mais ñun écurie Fass bi ñu nekk bëre moom ñëw ñu si kenn Fass sama ba tas na fa man man man man man bu ma bàyyi bëre je peux être un entraîneur de haut niveau ci sport de combat Balla mënu bokkuñu sax ay dimension. waaw man ngaaka laa moom wax dëgg yàlla ngaaka laa parce que bëgg ma doon nante parce que nante da lay sonal. Ah. nante non bu yàggee da nga yaakaar ne sa asamaan bu doon waaj da nga koy téye. non amul problème. Ah, ah. loolu yàgg naa ko dégg c'est pas une première. ci domaine bi ngay toll la en fait. ay niveau la. dama ciy poobar def ci akara def ci kaani sabal ko mën a saf saf. xam ne moom dafa fekk moom saa su day tàng man sama yaram du jékki-jékki tàng de man damay tàng tous les moments pour muy leer. gars yi dañu bëgg mbër bu dara. mbër mu mbër mu wuyu ci bés. bii man li mu bëgg moom moom lay def. lamb ji dina ci de coono bu metti mënul bañ a ñàkk. yooyu daal du yëfu góor pour man. arbitre prip doxal ci kaw adversaire bi nga taxaw. non dana xoox dana sonn parce que bu yaakaar ne ci ñaari minutes lay bëri day sonn danaa ko xooxloo dana sonn. mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi. lamb ji en live lay doon pay per ci seen affice point com.